indil leen julli korite daarul minan 2024 euh, ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mamadul Bachir jaar ci sëriñ Abdul sëriñ Muudu Abdullahi moom sëñ Moustapha am sëñ Bachiru moo ànd ko ak bokki taalibe yi ni ko baaxoo defee xam ngeen ne saayu bés bu demee nii amee ñu teew fii ci pénc mi ànd ko ak kilifa yi julli korite ren ji mu dëppoo woon ak ba benn fan ci weeru kori wi dëppoo ak le 10 avril 2024 bi nga xamee ne waxtu wi jot na nag sëriñ da Abdoulahi Mbacké ni mu ko baaxoo defee génn fegoog mbooloo mi jox ndigal rakkam sëriñ Cheikh Amadou Mbacké moom mun taxa moo jiite julli gi bi mu noppee itam mu yëkkati ay kàddu ci ndigalul sëriñ Mouhamadou Abdoulahi ni mu ko baaxoo defee kon nag euh, nu ñuy def rek mooy gannaaw bi ñu julee ñaari rakk yi ba noppi nu déglu kàddu yi nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké wax na ko ci ndigalul sëriñ Modou Abdoulahi allahu akbar allahu akbar walhamdulilahi kasira wa subhaanallahi bukratan wa asila asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ Seex mi ngi leen di nuyu ci ndigal sëriñ Mouhamadul Abdullah ne mi ngi leen di nuru ci turam di leen sant ginnaaw bi ñu sante yàlla ci bis bu màgg bi bu xéewale bii ndax xam ngeen ne waxtu wi démb rek bari na loo xam ne kenn sañu ko woon wala boog ñun sañuñu ko woon te tey ji sañ nañ ko te lépp ay xéewal la lépp ay bànneex la boo xam ne sunu borom dañu ciy fay kon ñi ngi sant yàlla bu baax ginnaaw bi nga xamee ne ñi ngi koy ñaan mu nangul nu lépp loo xam ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla moo xam ay koor la moo xam ay julli la moo xam ay joxe la moo xam ay ndimbal la lépp lu mu doon ci yu baax yi yàlla na nu ko yàlla nangul te fulal nu ko te boole ñu jéggal boole ñu yërëm boole ñu goreel ci sawara te defal ko suñu way dawlu yépp kon kàddu yi du gudd waaye bu ñu tënkoo ci li nga xam ne Serigne Touba moo nu ko digal ci xutba bi ñu doon jàng mooy dañoo digal nañu ragal yàlla ragal yàlla nag mooy di góorgóorlu ci li nga xam ne yàlla gërëm na ko tey daw li nga xam ne gërëmu ko moo xam ak jaamu yàlla la moo xam ak jëf yu baax la waaye boole ci sàmm suñuy cër jël ko def ko ci lu neex suñu borom ginnaaw bi ñu ko génnee ci li nga xam ne bëggu ko tey sant yàlla bu baax ci tolluwaayu jamono jii ndax am na lu tolloog ñetti at ci ginnaaw waxtu wu nekk waxtu wu nekk ñi nga xam ne ñaaw nañ njort dañ yaakaar dañuy yaakaar ne réew mi dana tàkk waaye yàlla sunu borom moo nu ko lijjantil lépp ci biir koor gi ci diggante bu gàtt lépp leer ñépp nekk ci jàmm loo itam lu mate sant yàlla la kon nag moom génn foofu rek. kon wax ji du génn foofu rek. nañ gën a góorgóorlu rek. nañ gën a gën a góorgóorlu rek. ci ndigalal sëriñ bi. ndigali sëriñ bi. ci ndigali sëriñ bi. lépp ci biir ndigalu yàlla yi la nekk. lépp ci biir ndi ci biir ndigali sallallahu alayhi wa sallam la nekk. nag kon nu gën a góorgóorlu rek ci ragal yàlla. ci maandu. ku nekk ñu di ko jox àqam. koo mën a dimbale nga dimbale ko kon da damay yamale samay kàddu foofu rek xanaa di ñaan rek suñ kilifa gii ci kër gi Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla bàyyil nu ko fi ba ca kanam te wekk yokk ak wéram bu baax a baax te defalal nu ko lool itam ci mboolem kilifa yépp waaye defal ko mboolem jaam yépp kon jërë ngeen jëf yàlla nañ ko fekkee ay déwéni déwén te yàlla nangul ñu lépp jërëjëf jasaakumullahu xeyr kon mbokk yi kàddu yooyu mu bàyyi ko ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Mountakha muy kàddu yu am solo yoo xam ne ni mu ko waxee rek ci njëlbéen gi moo xam ne eh, fàttaliwaat nañu tënkal tënkal nañu xutbab arab bi ci wolof te lépp mu wéer ko ci ak eh, ragal yàlla xamal nu ne ragal yàlla mooy jëfe ndigal yi ak daw ak moytu tere yi rek loolu mooy ndigal yàlla bu ko defee nag nu rafet njort suñu borom xam ne lépp rek suñu borom mën na ko ci li nga xam ne dénk nañu ko ci weeru koor wi ñaan suñu borom nangul na ko te dencal na ko fu yàq yëgut sàkku na itam ci suñu borom subhaanahu wa taala mu gën fee yàggal suñu kilifa yi ci biir Serigne Mountakha mu gën fee yàgg te gën a wér ak mboolem kilifa yi loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne bàyyi ko na ci Serigne euh, Cheikh Cheikh Amadou Mbacke Mountakha ko defee mu delluwaat santaat bokk yi nga xam ne noo bo ñoom ñoo ñoom naka jekk nooy ànd bi nga xam ne ñooy ñii saytu jumaa ji ak noddukat yi bilaal ak ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi ànd ak nun ñu ràññi ci Baye Serigne Sey jëwriñ yi Serigne Mountakha Serigne Moustapha Dieng Daarul Minan Xasaayit ak Serigne Fall Serigne mbake Fall ak Serigne Mountakha Diaw ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di ñaan suñu boroom ñu teewee ñu teewee ko déwén ay déwén yu bëree bari di dellu delluwaat santaat bokki presse bi nga xam ne noonu ñoom ñoo ànd liggéey bi sëñ Assane Ndiaye mi nga xam ne mooy technicien wu juma ji ak istikhama point com ak Serigne Mbacke Dieng ak si bi mu àndal moom itam ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm seen bokkum taalibi Omar Kane ay Aïssa nu yendu ak jàmm ba beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa